bokk na ci défi yu mu rël parce que euh, on peut rappeler que euh, artisanat mu ngi soog a am ministre bu bu kii ak moom ak avènement mhm. bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko sasoon mooy fexe ba au moins estimer euh, li nga xam ne moom la artisanat di indi ci économie du pays ñu am au moins ñoom dañu xaw a mel ni ñun amuñu base de données tey jii xamuñu ñaata artisan moo am ci Sénégal pour ñu mën a estimer apport bu muy indi ci économie ñun aussi dans le métier de la presse c'est la même chose fan ngeen tollu ci liggéey bi. c'est ça pour euh, mën a fexe ba au moins ngeen ngeen ngeen déterminer aujourd'hui apport artisan parce que quand on vingt de 97 pour cent. Euh, ñi indi ci si si si économie bi bi jógee ci secteur informel bi c'est bon aussi de savoir euh, quatre-vingt-dix yooyu euh, naka la naka la ñuy dugalee alal fan ngeen toll ci liggéey boobu waaw maanaam loolu am na loo xam ne ay jàngat yu ñu defoon ci ANSD moom moo nekk il y a un million quatre cent cinquante mille artisans au Sénégal mais tey jii amaat na fi mu ne nii commencé nañu li ñuy wax euh, recensement ci recensement boobu signé nañu convention ministère de l'artisanat et de la transformation signé nañu convention ak ANSD pour que ñu jël ñu en considération ci biir pour ñu gën a ñoŋal euh, li ñuy wax euh, activité artisanale bi pour xam ñaata la ak ku ci nekk fan nga nekk loolu mooy benn pàcc ñaareelu pàcc bi dañuy liggéey ak li ñuy wax Sénégal numérique comme ni ma koy waxee sànq léegi c'est le monde du digital nan la ñuy def un recensement digitalisé pour que ku nekk xam mm-hmm. kan mooy artisan ak kan moo dul alors man loolu moom mooy signature nañ ko door nañ ko normalement si mois de mai bi incha allah lañ koy door pour que ku ci nekk du au niveau digital ñu xam ko mais loolu du day bokk tamit ci beneen boo xamante ne mooy recensement li mhm. di def en ce moment ñun ñu signé ñoom convention pour ñu xam exactement ñaata artisan moo am ak fan lañ nekk